aouzu billahi mina seytaan mina seytaani rajim aouzu billahi mina rhinocéros rajim yàlla dafay bind doomu aadama yi am nu mu leen binde def leen ay seytaane ndax ak ay façon pour ñu yàq Sénégal fii nag tey li ñu fi boole tey ñu koy waxtaanee monsieur le président ma ñëw ci rapport bi mooy genre rhinocéros moo mooy lii yëpp bëgg xaalis bëgg tur bëgg mbooloo te amoo nit moo nu indi ci situation bii nu nekk tey monsieur président ma am lu ma waxoon ma ne nañu moytu ci biir rapport bi Ablaye Diagne que je félicite au passage nañu moytu di raamal sunu moroomu nawle tukkulóor sax am na lu ci wax maccudo rek màcc du lay àndal ndax jàpp naa ni lii xew tay ki ko indi ba tax ñu ñëw fii ñu ngi koy sant bu baax ndax bu deful woon ngoree bi ga mu def ji koy màccula ga mu def ji koy traître ga mu def kon du ñu am lumière ba war a jàpp ni assemblée nationale war naa interpeller ab juge man nag ma waxoon ne ci rapport bi waxaat ko démb fii ma taxaw que l' assemblée nationale est souveraine La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et nous sommes les représentants du peuple sénégalais. Nous sommes élus au suffrage universel. amul benn doomu aadama bu mën a wax ne du ñu la woo fii ñu taxaw laaj la nga tontu ma leeralaat ma ne fii ñu taxaw woo nañ ci ku ne damay reprendre rek les paroles textuellement les paroles d'un fameux leader que j'admire beaucoup quand il disait que le Conseil constitutionnel est corrompu le Conseil constitutionnel maa ngi ciy doog def sama xel maa ngi doog a ni wax na dëgg metti woon na ci suñu xol yi bi ñu daggee si liste Babacar metti woon na ci suñu xol yi loolu ñu ànd xeex tey am na sensu buuxuma micro bi yow am nañ chance tey la ma waxoon fii ñu dugalal ma ko ci rapport bi ma wax ne dama ne conseil constitutionnel am na ci ñoo xam ne jubuñu ils sont corrompus ils sont en connivence avec certains leaders de parti ils sont en connivence avec quelqu'un qui les a donné des sous loolu danañ ko leeral ci enquête bi waaye ci lu ñu woon ñépp loolu nag waxoon naa nañ ko delloo fii ci feuille bi ma leeral ni lawoon a garaa la séeréer di wax la ñu doon kaas 2019 ñu nuy daggal ay liste di ñu dugalal di ñu génneel moo dellu si waat yàllaa ko leeral jaarale ko ci kàddu parti démocratique di sant nag ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp ba heure bii du affaire xaritoo de monsieur le président affaire u leeral la bu fi kenn jóg naan wëy wëy ñii dañoo contre seen candidat kenn contrewul kenn man bu doon man Karim Meïssa Wade lañ ko wax damay bëgg mu leer man bu doon Karim lañ ne moo nekk en connivence avec un certain euh, frange d'âge de de de ce pays là pour liquider beneen candidat damay bëgg mu leer donc nous vous félicitons de votre clairvoyance ak li ngeen bëgg ñoo ngi seen ginnaaw incha allah rabbi ba yëfi leer day leer day leer Karim bëggul lëndëm bokk par force Merci. Monsieur le rapporteur, là encore Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, je voudrais remercier mes collègues députés, tout en précisant. Euh, je voudrais préciser en premier que ce rapport euh, découle d'une synthèse de la commission euh, des lois de la décentralisation et des droits humains qui s'est réunie le lundi 29 janvier 2000, 2024 pour un ordre du jour bien défini. Mise en place précision, les autres observations concernant le rapport seront prises en, en compte. Dire que toutes les autres considérations n'ayant aucune relation avec ce rapport portant relativement sur la demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire seront totalement rejetées. En plus de cela, sur les observations, il est important de préciser qu'il y a une différence entre un procès verbal et un rapport. Et le cas de figure qui se présente devant nous, c'est un rapport C'est pour cela que toutes les discussions n'ont pas été reprises. Je vous Merci, chers collègues. La discussion générale est ouverte sur les conclusions de la commission. Quels sont ceux qui demandent à intervenir